Pape Bouba Diop man maa doon jabaru papam deuxième femme papam mu nekk doom joo xam ne li ñuy wax ci moom day gàtt te rafet ndax ku am sa ñaareelu papa dam màkk jot nga ne ko dama koy yóbbu màkk xam nga loolu rëy na seen dërëmu kenn du si dem màkk we terte bu Bouba ma defal loolu sama doom yi ma ci am mu bokk ak moom benn baay moo ko gënal yi mu bokkal ndey ak baay pap boobu ba si koor gi yónnee na ma lépp ni di soxla si koor di ko lekk yónnee na ma ko waaw dañ koy ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge pap boobu yàlla na xare àjjana si barke Rabil Moustapha yàlla na ko yàlla att si yërmandeem te bañ koo topp dara si barkaat waaw en pagaille waaw abuba bi ma marqué doom bi ma dégg yu wóoy dama commencé marqué bés bu démb ndax loxo mosu jóge si man mosu jóge si rakkam li ma yónneex lim ma defar su ma ko fay ko woon tey du ma ko mën a fay mukk si àddina jóbbaal xarigay abuba xamu leen ko sax mbaa xam bu baa baax te yarut am diine dama jóge màkk mu ma tànt bu ma may dara kaamil ak sajaada rek laa soxla su ñëwee di ma may xaalis dafa may nabbi na béggee ba sama mbagg yi di bës du bëgg a kenn gis li may may papam feebar ma nekkat papam 6 ans Ouest Foire su ñëwee lu ne lay indiwaale fruit bu ne dina ko indi ndax man waaye bu may may xaalis ñu nekk Ouest Foire kenn du ko xam yóbbaale maa ngi soog a ñàkk bu takk ci man maa ko soog su demb bi li ko lazim limay may ko parce que dafa dé rek tax ma diko wax ken ken ken du melni mom ci si ken du melni mom ci si man defo na demb damay dé ndax dama amé cardiaque defo na demb bi ma yuuxoo benn yuuxu dama beut sama deun ndax sentir na lo xamné suma gogol won mu ñu ko naan tel heure lañ leen di billahi wallahi lazim boobu baax na foofu rek laa mën a yem si moom kenn mënul wér su ma ko mënoon du wax ko mais loolu rek laa mën a wax si moom toppatoo ay mbokkam yépp nag ma sàmba desul ma demba desul kenn du waat ne téyewu ma xaalisam amul mbokkam yëpp waaye